di jëwriñu màggalug daaru salaam ñu ñaan sun borom yàggal ko fi lool te dolli ko ak wéram ba lépp lu mu bëgg a sëriñ Touba sun borom jàppale ko ci ba mu àggale ko di leen nuyu ci turu sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo yore kaddu njabootug maam Cheikh gépp sëriñ moor Fati mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Anta ak sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Mamoun ñoom ñëpp ñu doyloo ko dénk ko seen kàddu mu di ko doxal ah, cérémonie bi nag nii Serigne Cheikh Anta Samb waxee mbokk yi daa mel ne kenn desutoon ngir ànd ak ñoom teewlu teerul leen gan ñi la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mahamadou Moustapha ba ñëw ci kër Cheikh Mahamadou Mourtada xam ngeen ne démb Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad teel na fee ñëw laal Serigne Moustapha moom sëñ Abdoul Ahad Serigne moom sëñ Abdoul sëriñ Fallou moom sëñ Abdul Xaadir nga xam ne waxtu wu ne bu ñu màggal mooy jiite si timis sëriñ Abdou moom sëriñ Sohaybu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi kenn desu ci waa kër sëriñ Abdullahi sëriñ Cheikh njabootam gépp kenn desu ci waa kër Cheikh Ibrahima moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul waaye njabootuk Cheikh Mamadul Fadal gi. ñoom ñëpp àndandoo nañ teewe si bis bi nga xam ne bisum ndam la xam boo xam ne boo amutoon Sénégal duñ tala toog ñaari nit di fi daje di wax loo xamante ne bii mën naa yewenal seen àdduna mën a yewenal seen àllaaxira day mel ne indépendance buñ koy wax kere bi Serigne Touba jóge ci géej gi la ko Sénégal am muy 1903 <coughs> bi Serigne Touba jógee ci géej gi ñëw Daaru Salaam te wax na mbooleem lu doon wut. am naa ko mbooleem luy seen texeeg àdduna ak alaaxira yàlla teg na ko ci sama loxo bis la Sénégal am indépendance ndax biñ ko fiy jëlee di ko yóbbu ci géej gi tubaab bi lim bëggoon su amoon tey ji yaakaar naa ne bu tisbaar jotee kenn du déggu noddu bu fajar jotee kenn du déggu noddu waaye buñ noddee kenn du wuy si Sëriñ Tuubaa képp moo ànd ak deram ak kaamilub alxuraan bañ ko ne doo wut àndandoo ndax tubaab yi daa soxor dafa wax ne wutuma benn àndandoo bu dul téereb yàlla bi rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi sama àndandoo daal téereb yàlla bi doy na ma ci bam liggéeyalee yàlla itam ba ab liggéeyam àgg mu laaj boroomam ne ko liggéey bi àgg na ci géej gi damaa war a ñibbiwaat Sénégal su ma delloo senegal fan laay dem sun borom moo ko tegtal na ko boo delluwaatee demal ca dëkk ba nga njëkkoon a sanc rafaatale woon ko sa rakk baax ja maam na nga wàccaat ca dëkk boobee sëñ Tuubaa bind wax ne lahu taala rujuhi min idaaya ila daari salaami lati tubna bi tajdiidi sama borom dogal na danaa tàggoog sama noon yii ñibbiwaat Sénégal delluwaat ci sama kër ga ñuy wax daaru salaam waat ko ba mu dikkee nag bis boobee màggal gii ngeen ñëw mooy màggal gi mag ci yoonu murit mooy màggal gi njëkk a dajeel sëñ Touba mbooloo mépp daje sëñ Touba fekke ko ma nga amoon ci ren jii mooy téeméereelu màggal ak benn màggal muy ab seekal bu teg benn bis kon yaakaar naa ne màggal gi mooy màggal gi mag ci yoonu mu murit dëkk bii ngeen ñëw mooy dëkk bi Serigne tubaa njëkk a am ci kaw suuf sanc ko ci atum 1884 doomam yu baax ya di Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal ganee fi àdduna ñaar ñi ngeen fi fekk si di Serigne maam Cheikh Anta ak Serigne Afia ñaar ñu day kenn ku ci nekk féete woon nga Serigne tubaa foo xam ne amut keneen ku ko féete foofa ku mel noonu. bokk nañ ci ñi njëkk a jox seen bopp sëriñ tubaa ba Serigne Moussa Ka di wax naan yaa jëkk a fab say mbir ci seenu askan jébbal Serigne Touba nu roowala kenn maam Anta Ndiaye wàcce nga am nga yaaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram kon yaakaar naa ne monsieur le dëkk bii nga ñëw dëkk la boo xam ne li Sénégal tiit réew mépp di ko waxtaane Afrique di ko waxtaane muy jàngoro ju ban jooju ñuy wax Ebola Serigne Touba fii la ñaanoon. mbooleem jàngoro ji bàyyi ko bitim réew di walle bu mu dugg senegal sëñ Tuubaa moo ñaan ne ical salaamatan te duumu yaa salaam liya walil iyaali fii daari salaam yow yàlla mi nga xam ne yaay borom jàmm ñaan naa la nga defal ma jàmm ju sax dàkk ci daaru salaam ak sama njaboot ga nekk daaru salaam kon yaakaar naa ne bu ngeen ñëwee daaru salaam tey lu ngeen bëgg su ngeen ko ñaanee ci bis bi da ngeen ko am moo mel ne nag bokki sëriñ tubaa yëpp njabootuk sëriñ Tuubaa gépp kenn desu ci kii toog nga xam ne mooy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mahmoudane bokk ci njabootuk ma sàmba ànd ak Serigne Ahmadou moom Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifam Serigne Massamba borom jaamu yàlla ak liggéey keroo ba maam Cheikh Anta wàccee ab liggéey ci 31 décembre 1940 bët set di 1er janvier 1941 moom mii la maamam lañ fi yabaloon mu toog am fi am at yor njabootuk maam seexante Anta gépp di leen toppatoo kon tey jii jotaayam bi yaakaar naa ne mu dend ak sëñ jiili loolu rafet lool.